di wax rek agent yi nga xam ne yéen lañuy ñuy formé muy euh, personnelu état civil bi te inspecteur Fall jiite leen ku nekk dégg na coow li ñuy wax pour ni naa état civil ay nii ay naa donc président ñu ngi koy wax naan dañoo jël ay nit def leen fi dañoo war a jël xale def leen fi waaye ku gé ku nekk gis naa système américain yi dangay jël ay xale yu bari teg jël ay borom xam-xam yu mag teg jël ñu expérimenté teg ci seen kanam ñuy filtre yi nga xam ne maanaam bu dara ñëwee te melul ni mu war a mel danañ ko filtrer wala ñu jubbandiku ba mu jubbantiku nga ñu mu door a dem ndax résultat bi ñu am ci États-Unis ba ñu ci naw Tuuba ci Sénégal yépp ma muy dox nit ñi di am jàmm di jot seeni këyit li ñu weesu de mënuñu ko lijjanti parce que boobu nekkuñu fi waaye fi ñu tàmbalee jëm ci kanam lépp ku fi amu këyit dana tegu ci yoon yoon woo xam ne bu ëllëgee ki si biir yow too am jafe-jafe wu ndax ku nekk xam na ne état civil commune yi maire bi yoru ko woon maire yi yoruñu woon président communautaire yoru yoruñu ko woon préfecture la nekkoon ma nekkoon centre bi bi nga xamee ne nag acte acte trois bi ñëw na. ñu jël ko indi ko ci maire yi donc maire yi ñooy mooy sa mooy mooy centre bi moo lépp moom la war looloo tax nag li nga xam ne avant maire yi la woon dana am tuuti jafe-jafe naam ñi ngi ci ci ni ni ñu li ñu ci xalaat ak li ci président xalaat ñu ngi ko fas naa defar ba la nga xam ne jiitu woon na lépp ñu teg ko ci aw yoon ndax kilifa yi nga xam ne seeni at romb na juróom benn fukki at yépp seeni kayit xaw na am tuuti jafe-jafe waaye teg nañ ko ci yoon woo xam ne ak programme boo xam ne yaakaar naa ne lii ñuy def su àggee jafe-jafe yépp dana jeex ndax informatisé nañ ko def nañ euh, ko benn réseau boo xam ne am na quatre-vingt-dix post de travail yoo xam ne commune bi am na ko bon def nañ appel candidature ci ay ay informaticien yoo xam ne nii danañ ci jël lu ma trente personnes ñu ngir ñu sisir li nga xam ne moo nekk ci registre yépp ñu jël ko dugal ko ci machine yi mu nekkee ci informatique nga xam ne boo foo taxaw ne diw laa tudd wala sama numéro kay nangam la danañ mën a tàppe machine bi tiire ko signal la ko jox la nga dem ci diir bu minute yu néew a néew loolu lépp nag ñu ngi ko def ci bi ñuy waxtaanee ak président bokku xalaat bokk bëgg-bëgg bokk ma bëgg jàpp defar dëkk bi ba mu war a bokk ci état civil yi nga xam ne ci Sénégal ñoo ci gën a rafetu doxin. formation tey bii nag daf cee raw muy état civil ndax état civil mën ne mooy dundug doomu aadama bu doomu aadama doon amul ruux ci kaw suuf ñu ne état civil ay ruux gi waaw état civil mooy ruux. ndax état civil boo ko ñàkkee wala nga ñàkku këyit donc problème ba ngay am da ngay xam ne ruu la ndax mën naa yàq sa adduna loo xam ne nag dem na ba mën a yàq sa adduna yàpp naa ne loolu am solo la man état civil xam naa ko yàgg naa ci def naa ci 30 ans yàpp naa ne ñu toog fii ñu mu ku mu ci gën a yàgg amul ca ba Touba di Touba boobu bu ajjuma ajjuma ba ajjuma la état la ñuy ñëw wut si kayitu judd bu ajjumaa ñu daje gi gis sëñ fàllu bi ku am kayit ku bëgg kayit ñëw foofa ñu defaral la maa ngi ñaanal ma seen yal na ko yàlla yërëm mu jiite ko ñu nekk fa ajjuma bu ne président tribunal bi jógee Jurbel boobu Mbàkke amul tribunal jóge Jurbel ñëw toog ci gigis gi ñu enregistré li fi am ci ay juddu mu yóbbu bu ajjuma prochain mu indi joxe ay kayitu juddu ñuy dem di dem di dem tey ba lépp delsi fii ñu dem ba lépp ci gàttal ñëwaat Touba état civil am bu mag fii ni ko maire waxe yoruñu ko woon ñu dem ba lépp ak trois bi ñëw ñu jox ñu lépp kon war nañ cee mën a góor góor góorlu gën cee mën a taxawaat taxawaay boo xam ni dana wuute ak beneen bi nga xam ne moom la ñuy wax ndax man maa ngi rappelé parce que man lii di wax ak yéen am maire laa waaye agent d'affaires laa woon di liggéey ci kayit li ma ci xam defe naa ñi ñu toog fi ñu bëri xamuñu ko ambassade bu ne dugg naa ci rejeté nañ dossier bu ne ci problème mu kayit bi waaye jàpp naa ne maa ngi wax ak barki démb madame Deme yàgg nañoo liggéey maa ngi moom moo yoroon état civil léegi député la moo wax mu ne Touba nu ngeen mel mooy ko Touba de fi mu toll tuwaar fakkal fekk ñu daje benn séminaire méridien ma koy wax ak moom ma ne ko fi mu ne de état civil yi gën mu ne ma yéen a gënoon a ñaaw état gën koo bon ci dëkk bi la waaye yéen fi gën a rafet la fi mu ne parce que ambassade yi seen bopp signalé nañ ne Touba léegi résultat bu dem ñëw ci bu njëkk résultat fi ñëw bal pour nga jot jafe la dañuy mujj ambassade ba nga taxaw a taxaw a taxaw moodu moodu ba fa nekk am problème mujj daanaka ay kayitam day naax saay rek parce que réponse du ko am bu bu bu baax kon nag tey bu ñu demee ba nga xam ne bu ambassade bi bindee tey moo xam muy Italie moo xam mu Espagne moo xam bu mën a doon ñu daal di koy mën a tontu mu dem kooku amu kayitam yóbbu njabootam regroupement familial am mu dem kon liggéeyub ah, mairie bi la liggéeyub ah, agent kii yi la kon du ñu man lu may sant leen gërëm leen ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a koy liggéey metti na nag gis nañ leen kenn ku ci nekk ni muy doxe parce que man bisu set damay dugg seen bureau yi di wax di xool bu ma gisee nit sax toog fii damay woon wax loo fi def mu ne këyit laay xaar ma dem attaqué Bamba wala ma attaqué Bass wala ma attaqué kenn kii lu fi def pour fi am 24 heures am loolu mooy liggéey bi te loolu nag maire ñi moo ma waxoon ne ma déema surveiller waale waale état civil di ba xam nit ñi seen coow lan la ak lan la parce que dañuy génn ci biti di wax loolu nag ma ko wax danaa ko wax fii tey waaw boo ngeen ma gisee toujours ma nekk ci ni ci hall bi di kenn kenn ku nekk ma lay contacter yéen may gis waaye booba ndigalu meer la ndax man damaa toogoon rek moom ma wax ne boo demee te ci hall bi gis mu fees balaa nit ñi génn di wax kenn ku nekk laajal ma lan moo ko fa tey nga xam lan la boo ko mënee topp doo nga topp toog defe naa dem naa ci Dame Diop dem naa ci ànd naa ndaw si ba tey lijjanti ay këyit ay nit ñu toog fii loolu lépp nag liggéey la boo xam ne li ñu ci bëggoon mooy fexe ba Touba kenn ku nekk parce que coow li daa commencé am ci dëkk bi da ngay am këyit yóbbu ko Touba moom fa ñetti fan am fa ñeenti fan am fa ñaar juróomi fan nit day jóge Dakar ñëw bëgg a defaru këyitam retourné waat ñu ne ko gannaaw suba loo nang loolu defe naa ne na fi loolu it nag ñi ci félicité mooy ñiy bind waaye di ci félicité ñiy signé remercier Abdou que boo xoolee lu tax ma koy remercier fii ci lii mu fi indi tey boo xoolee salle bi représentation féminine bi jigéen ñi fi toog nga xam ne en matière de parité ci wàllu emploi Abdoulaye Ka réussir na en matière de parce que vraiment on voit que ne am na yéene ci jigéen ñi te responsabiliser na te jigéen aussi bu ko responsabiliser en cas rek di nga xam ne. am na jigéen ñoo xam ne mën na lu góor mën wala ñu mën lu ëpp lu góor mën kon nag les femmes aussi yéen tamit am ngeen njukkal lu ngeen ko parce que communes yu bari en matière d'état civil wax xam naa ko baax représentation de femme am tey fii amul foofu donc vraiment loolu loolu war nañ ko ci delloo njukkal parce que parité loolu dañ ci Sénégal ndax lu góor ci wenn di wax nag ci solo brique bi parce que bëgguma guddal tam ñun ñëpp xam nañ ne on est très chargé aujourd'hui mais importance bi ku xam monsieur le maire cahier de charge xam président tribunal cahier de charge xam man sama cahier de charge ak professeur Lo xam ne bu ñu dajaloo fii ñu ñëpp teew c'est parce que solos lii ñu fiy lijjanti tey moom moo ko waral muy état civil état civil ñëpp manqué nañ ne bu fekkoon ne àdduna bi dafay am ruu mën nañ ne États-Unis moom mooy ruu àdduna c'est capital que am na diine yoo xam ne ak kilifa aada yoo xam ne duñ ko jox ku dul responsable pour revenir ci li Abdoulaye Daouda wax di ko di ko appuyer il faut que am un responsable doublé d'une expérience te franchement ñi nga xam ne ils sont à la tête de l' état civil de Touba man am naa ci ñoom confiance am naa ci ñoom yaakaar parce que nag dañuy wax mag mag mag mag naa bàyyi ci réew mag waaw waxtu mbar ma daan na wax ne mag mag naa bàyyi ci réew te il faut que mu am ay filtre parce que lu sensibiliser sensibiliser sensibiliser ne état civil il faut que mu am ay filtre ay encadreur ñoo xam ne tey ñu seen diggante àdduna lu dul yàlla subhaanahu wa taala ndax lu bëri nag wees naa la te fi mu ne seen bàmbeel lañ gën a jege loolu lu am loolu lu am solo loolu lu am solo la ko bàyyi xel bu baax a baax ten bii ñu ñu fiy waaj a développé tey muy organisation ak fonctionnement état civil professeur wax na sentir naa ne jigéen ñi nekk ci état civil ak góor ñu lu sekkal ñoom engagé wu nañ pour jàng et je sais formation bi c' est une vieille ndax fekk naa fi lu bëri ñu koy ñaan maire naan ko maire dañoo bëgg ñu former ñu au niveau parce que nit lu mu xarañ xarañ dafa laaj technicité dafa laaj formation comme ça ëllëg njuumte bu mu mën a def ah bu boobaa mën nga ko bañ a pardonner parce que formé nañ ko kon ñu leen ñaan formation bi ni ko may wax ngeen bàyyi ci xel. ngeen bàyyi ci xel bu baax le bon sens est la chose la mieux partagée dans le monde xel ñëpp yàlla la bu doon jaay day lamb xel mooy loo xam ne ku ci nekk rek jàpp nga ne sa bos moo la gën a doy bosu keneen kon tey da ngeen bàyyi xel bu baax ci formation bi euh, du ma ci soriwaat ndax man li tax ma gën a kontaan muy maire mi mi jël parole modérateur professeur préfet daanaka dañu ils ont donné le ton c'est-à-dire dañu définir man naa ne sax ñoo ma gën a xam lan mooy état civil am na ku tudd baatu wax na ci këyit passeport carte d'identité wax na ne mooy mooy nit donc loolu man tey bu ma doon commencé sama introduction dootuma ci wax dootuma damay tëb introduction bi parce que ñoom wax nañ lan mooy état bi lu mu tekk ci nit ki lu mu représenté kon loolu waree na rek man xëy na ay aspect pratique ci mm. sama expérience laa war a gën a jëm mais bu dee côté théorie bi ah ñi ma fi fekk ki jiite institution bi ak ñi topp ci moom ñëpp gënu ma leen xam définition maanaam baat bi li muy tekki solo si it maire wax na ko ñëpp wax nañ ko mooy wax nañ lu muy tekki mais wax nañ également responsabilité bi loolu it maire lim ci wax doy na sëkk am na sax ko dem ba maa ngi ñu ngi tooñante léegi ma ne mu ne mbaa duñ tiital sama agent yi ma ne ko waaw wax dëgg yàlla <laughs> man ñu sax xaw naa ci tiit donc loolu it di ci dalal seen xel rek xëy na ki ko wax dafa bëgg modérateur wax léegi dafa yàgg liggéey mm-hmm. am Pastef ak pas-pas ci liggéey rek mm-hmm. moo tax muy waxee niveau boobu effectivement nag foofu dafa am solo di fa waxee waaye teewul nag wax naa ko un jour ay kilifa yu nekk fii euh, ñëwuñu fi pour tëj kenn dañ fi ñëw pour encadrer waa dëkk bi jàppale leen ñu ànd liggéey liggéey bu mucc ayib ba ñépp gis ni maire wax na ko comme sëriñ bi sañ ci dëkk bi référence la dëkk bi it ci aspect yi fi nekk yépp doon ay modèle de référence yoo xam Sénégal mais àddina dañ koy war a jéggaat si di ko indi di ko jël si fii ndax Touba yaakaar naa màggal wane na ko ak feneen amul ci àddina benn gox bu umpale Touba amut ñëpp Touba la ñuy wër tey kon nag ñun li ñuy fi yor ñun suñu wàll ñu ñu fexee ba mu doon référence moo tax nag ki wax affaire boobu xëy na foofu la ko waxee ngir rek nit ñu ab ci Pastef xam ne it am na ay ay ay jafe-jafe yu ci mën a am jafe-jafe yooyu it mën naa indil nit ay gàllankoor am na ku cité léegi suñu mbokk bi nga xam ne nii am na ci natt loolu it moo waral kon ñun suñu teewaay fii fexe ba euh, mooy objectif yi ñuy wax ñaari fan yi suñ ci noppee agent bu fi nekk tey wala officier bu fi nekk wala képp ku participer ci atelier bi rek acte état civil bu mën a doon bu mën a doon suñu ñëwee nit ku ñëw soxla ko ci yow cest à war nga am capacité wu defar boobu mooy bi ci njëkk cest dire fexe ba ku fiy teew rek yow dootuñ la wax waxu lu ñuy enregistré naissance wala mariage wala rectification wala reconnaissance wala enfant naturel c'est-à-dire lépp lu laal état civil xam nga nu ñu koy defaree muy benn bi loolu lañ bëgg loolu lañu yéene ba ca toppaat ku ciy liggéey nag da ngay xam responsabilité c'est-à-dire li lay li li li lay xaar ak li la ci mën a fekk donc moom la ñu organisation fonctionnement état ak contentieux bi contentieux bi ñaari xaaj la mooy jafe-jafe yi agent bi mën a am ci liggéey bi nu mu koy jubbante nu mu koy joyante ak it nag bu fekkee nag joyanteeg jubbanti boobu wala jafe-jafe yooyu nag moo ko tey la ko tey xaar donc loolu mooy problème contentieux bi donc mooy ñaari fànn yoo xam ne nii tey moom lañ bëgg a waxtaanee ah di jégguluwaat baax ci kàddu yi euh, man juge du siège la àttekat la préfet xam na li may wax baaxoowuñ mën a wax parquetier yi mooy maanaam mooy procureur yi ñoom ñoo ñu gën a am éloquence ñoom ñoo jóg ci audience bi taxaw di di wax ñun nag ñun on dit le droit dañuy dañuy àtte ne lii moo am moo tax suñu wax euh, xëy na du mën a gudd waaye yaakaar nañ ne daal li amoon solo xaw nañ ko tënk.